بسم الإله الأدار يا الله سفي بقاء به لي فيك يا الله بسم الإله الأدار يا الله سفي البقاء به لي فيك يا الله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 laa xawla wala quwata illa billahi alil azim mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bu nu sante sunu borom subhaanahu wa taala julli ci mustafa sallallahu alayhi wa sallam feddliwaat sunu yaakaar ci Seyxuna Ahmadul Xadim ñoo ngi ñaanal sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ne moom la yàlla dogal muy jëwriñu yoonu murit noo ngi ñaan sunu boroom mu gën a guddal aw fanam lool te gën a dolli ak wéram tëbb ko kàttan ba naal yu sell yi mu naalal lislaam te lépp di ñaanuk sëriñ Tuubaa sunu boroom bàyyi ko fi ba mu matale ko te ñu ànd koog moom te am ci ngërëmul sëriñ bi di nuyu ak a njabootuk cheikh Ibrahim Mbacke borom Mbacke Kajoor ca ka ca bopp ba di cheikh Mouhamadul Moustapha ne di ko ñaanal sunu borom gëna a guddal aw fanam te gën a dolli ak wéram ci barke Cheikhul Khadim di nuyu ak a ziar ak a ñaanal sëriñ Mamballa Mbacke xalifa sëriñ Omar Mbacke Gelawngal waaye di nuyu am di Moustapha mi nga xam ne mooy xalifab sëriñ Modou Mbacke. di nuyu nag borom ëtti bii ñu nekk di sëriñ Abo Mbacke. xalifa sëriñ Abdul Karim waaye di kilifa ak bi di ko ñaanal yàlla muy nit ku woyof te baax te bëgg lu baax lool yàlla yàlla sàmm ko te taxawu ko bàyyi ko fi ba mu yàgga doxal mag ñi seeni yitte ci barke Cheikhul Khadim mbokk yi ñu dellusiwaat ak seen émission bi ñu doppee ëttu murit te ngeen baaxoo di ko ànd ak ñun dimanche ju jot bu 22h jotee ci guddi ci seen télévision bii di Lamfal TV. Euh, seen mbokk taalibe Fallou Galass Syll moo nekk ci micro bi fegoo ak alhaaji Fallou Syll ci wàllu machine bi mu dend ak sëriñ Babacar ak sëriñ Mouhamadul Mamoun tey nag sunu jotaay ñu fas yéene fàttaliku ñaar ñu màgg di ñaar ñoo xam ne bàyyi nañ ci àdduna lus leen mën a roye waaye jëf nañ ci àdduna it loo xam ne doy na yaakaar sëkk ci ëllëg ba ñu jëm ñaar ñooñu doon ñaari leeri sëriñ tubaa kenn ki di taawub sëriñ Touba xaadim rasul bu jigéen di soxna Faati ja mi nga xam ne mooy taawub Cheikhuna Ahmadul Xadim waaye ñu ciy fat ñu ànd ak rakkam di taalibeem moom itam di doomi Cheikhul Xadim di soxna Faati Penda mu sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul xam ngeen ne bokk yi njabootu soxna Faati pend ñooy waajal bis biñ koy fàttaliku waaye dara jaale ko nag soxna Faati ja taawub Seexul Xadim muy lu rafet moo tax ñu toog ci jataay bi fas yéene leen a waxtaane muy doon nag bind ci gone yi nga xam ne ñi ngi gëstu te bëgg a xam taarixub yoon bi waaye doon nag fàttali ak royukaay ko ci mag ñi waaye royukaay ci gone yi nga xam ne bëgg nañoo baax boo ëllëgee ma feggoo ci sama wetuk càmmooñ mbay sëriñ Mbacké nga xam ne moo ñu fas yéenee ñëwal ci dundu soxna faati Penda sama loxol ndijoor Serigne Mor Mbacké xam sa diine moom mi nga xam ne moo ñu fas yéenee ñëwal ci dundu soxna Faty Dia bintu Cheikh Khadim lépp nag ñoom it ñu def ko ci ndigalul sëriñ Taala mi nga xam ne mooy jëwriñu kër ga tey ngir njëkkante ak waxtu wi bañ a damay bàyyi bàyyi sëriñ mu nuyoo ci biir am nuyoom nag mu indiwaaleel ñu gone yi nga xam ne ñi ngi soog a dab jataay bi ak ñi nga xam ne ñi ngi soog a dégg turu soxna Faati Penda wala ñi ko déggoon te xamuñu ko kan mooy soxna Faati Penda ci ab kon ma bàyyee kàddu gi ak bàyyi sëriñ su ko defee mu nuyoo ak bokk yi rek ñëwal ñu ci laaj boobu aousu billahi min shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala wa ala wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi ddin asalaamaaleykum mbokk yi eh, ñi ñuy jàkkaarloog doon ak ñi ñuy déglu ci Lamp Fall FM ñu ngi leen di nuyu nuyoo bi nga xam ne moom la nu lislaam tànnal mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Eh, di leen jottali nuyoo ak siyaara nga xam ne moo jóge ci kilifa kër gi muy sëriñ Amdi Moustapha mi nga xam ne mooy mag ci njabootu soxna Faati Pend bu ya tey te jëwriñam ji nekkal ko fi muy sëriñ Abo yi nga xam ne moo toog moom sëriñ Abdou Karim di rakkam ñu ngi nuyu ci turam nuyoo boobu ñu ngi koy tàmbalee ci ki fi nekkal sëriñ Touba mooy seex Muhammadul Muntaqa di ñaan sunu boroom mu bàyyil na ko fi ba li nga xam ne naaral na ko xaadim rasul lépp mu àggale ko te ànd kook moom te làq ci li nga xam ne moom la gën a bëgg mooy ngërëmul sëriñ Touba eh, di jël nuyoo bi ak siyaara bi itam di ko jox ki nga xam ne moo fi nekk sëñ Mbàkke Ibra muy sëriñ Mouhamadul Moustapha di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ngir mate na sëkk toogaayam sëñ Mbàkke Ibra di ñaanal it sunu baay sunu kilifa mooy Cheikh mm, sëriñ Maam Balla Mbàkke mi nga xam ne moo fi nekkal sëñ Amar Mbàkke Gelawngal tey boroom kër gi eh, sëriñ Amdi itam eh, tàggu na leen ñoom ñëpp waxtaan ceeg ñoom bañ jox ko ci ndigal mu door a am sañ-sañu woote bis bii te mook ñoom ñoo ko ànd di ko woote kon nag lépp lu ñuy def itam ci ndigal lañ koy teg kon ñu ngi nuyu bokki réew mi bokki Sénégal bokki jullit ñëpp ci turu sëriñ Abo mi nga xam ne mooy jëwriñ ji te nekk nii ci ab jataayam euh, di sant bokk yépp di nuyu ñi nga xam ne ñoom laa bokkal jataay bi muy sëriñ Maam te ñépp xam ko ci liggéeyal diine euh, loolu mooy aw dàkkantal ànd naa ko turam muy sëriñ Maam xam sa diine euh, di ko ñaanal sunu boroom mu yàggal ko fi te weral ko te lépp loo xam ne mi ngi koy liggéeyal sëriñ Touba mu am ci lam ci jor lam ci yaakaar eh, lépp suñ boroom defal ko ko eh, di nuyu itam sëñ fàllu Garas Silla mii nga xam ne moom it ku ne xam na ko ci yoon wi eh, ak li nga xam ne ñoom la bokkal plateau bi ñëpp sëñ fàllu li nga ma laaj mooy soxna Faati Penda soxna Faati nag ci doomi Serigne Touba yi yu mag yi ci la bokk mën naa laa wax. ndax ñi ñi tuddee sëñ Touba sax amut amut euh, mag ak ndaw waaye nag ña jiitu géej gi moom ñooñu ñi la ñuy tuddee ñu mag ña waaw te moom feeñ na lu jiitu géej gi ndax dañoo wax ne assasine ci la gane àdduna doomi sëriñ Touba yi nga xam ne ñoo feeña Touba bariwut dañoo wax ne juróom la moom mi ci la bokk moo sëñ Mouhamadou Lamine ak euh, Euh, ñu néew daal juróom juróom lañ ñoo xam ne ñoo ganee àdduna fii ci Touba fii la ganee àdduna xam naa lu ñaari at wala ñett lu jiitu géej gi ci niñ ko waxe euh, way juróom wu jigéen nit mooy soxna Penda bu yóbbaax soxna Penda bu yóbbaax euh, moom mu ngi bokk ci néegub seey dañoo wax ne sëriñ bi eh, bi mu yoree soxna Aminta ba yàlla dogal mu génn àdduna sëriñ bi dafa wax ne néegub seey dama fas ak ñoom wëllëre nañ ma wutal ko ca bokk ah, soxna Penda bu mu mi nga jóob mi nga xam ne mbokkam la it ak ak ñeneen ñoo xam ne booleel nañ boole na ko ak ñoom soxna Penda bu yeew jóob mii di way jur sëñ Omar Mbàkke Galawngal ak soxna Penda bu yóbbaam yi seen ñaari maam yu jigéen ñoo bokk ndey ak baay ñoo bokk it ku ñu leen tuddee ñoom ñaar seen Penda bu Jóob moom la sëñ bi defaloon wasiye boobu ñu di wax wasiyetu Penda Jóob boobu ngay gis moom la ko sëriñ bi defaloon fekk na moom mi ngi ci kër maam Mor Anta maam maam euh, Ibra ci daaray maam Mor bi nag mm, bi santaane ñu andi indil ko ku bokk ci néeg bi moom moo dem jëleli ko soxna pende bu yóbbu ba mi ci fi ñuy wax kër yaaba Jóob fa la ko jële indi eh, ko andil ko fekk na waaye juróom bu jigéen génn àdduna mu nekkoon ak magam yu ñuy wax soxna Saajo Ba fa lañ ko jële lañ wax andil ko sëriñ bi mu dugg ci néeg soxna Aminta Lo mi nga xam ne doomi ndeyam la eh, loolu mooy dikk gi ci kër gi yàlla dogal nag am mu am fi soxna Faati amoon na fi it ay seex yoo xam ne ña nga fee ci kër yaabo ñoom it eh, ñoo soxna Faati ñoo bokk eh, wenn way jur mooy soxna Penda bu yóbba ak sëriñ bu mag bi bi yàlla dogalee sëñ bi di dem ci géej gi ma ñëw sax ci bokk gi bokk bokk soxna Penda bu yóbbaax ndax way juróom wu jigéen mu ngi tudd soxna roqee xujje kumba roqee xujje kumba euh, masamba anta cee ko jur madun penda buy jur ko mataar ndumbe jur ko mataar ndumbe mi nga xam ne moo sañcoon kokki euh, ba tey soxna penda buyoo baa Eh, yàlla dafa dogal eh, way juram wu góor ñu di ko wax Ibra Penda Buyo Ibra Penda Buyo moomu eh, li ñuy wax naan lislaam kilifa yu baax yi jëmbat nañ ci jàmb ba tey ci réew mi ak àndandoo ak bennoo ndax kilifa ak tiijaan gu mag bu ñuy wax Mouhamadou Amé Ba ñu di ko wax euh, Ahmadul Madiou moom dafa jóge woon ca Fuuta yàlla dogal mu ñëw ci réew mi ñëw kokki ka sëñ jaga euh, booba ki fi nekk ci kokki muy sëriñ kokki moo doon euh, njaga isa moom la ñëw gane ko wax nañ ne ab diir ñu nañ lu bat weer ak fukki fan am na ñu ne manqué na ko waaye daal ñëw na ganasi ko moom sëñ Kokki Njaga Isa euh, ba fa nekkee ab diir mu xool lislaamam mu doy ko mu xool xam-xamam mu doy ko euh, nga xam ne nee nañ ba mu ñëwee dafa téye daara ji ci loxoom ñu toll ci beqi moo leen di toppal ñu nga xam ne ñoo toll ci ñu di leen tëralal mu di leen tëralal te tukkuloor bu jóge ci Fouta di kilifa gu mag di kilifa gu baax bu ñëpp xamoon foofa yàlla dogal mu xosañ kokki jege isa xool ko ba mu doy ko mu yëkkati ab taawam jox ko muy soxna pend bu yo jóob ko fuuta ba mu nag ci la am ibrahima mii muy ibra pend bu yo ibra pend moomu nag bi màggee dafa ñëw jël siwaat doomi ndayam koo xam ne seeni nday bokk muy ku ñu wax roqay ji kumba am ci soxna pend bu yo ba mii ak soxna saajo ba soxna Penda Buyo moom lañ joxoon sëriñ bi mu am ci soxna Faati ginnaaw bi sëñ bi demee ci géej gi eh, digle ñu jox ko maam Mor Jaara mu am ci seex seex Penda Buyo ak soxna Màggat ak soxna maam Asta ak soxna bu eh, soxna Sadio Ba moom bokkal ndey ak baay moom soxna Penda Buyo ñu jox ko sëñ Pir Yoro saajo sëñ Pir Yoro Sadio moomu nag. Euh, moo ci am euh, soxna Fat Fall Mbolo soxna Faati Fall Mbolo la ca amoon euh, soxna Faati Fall Mbolo moom lañ jox maam Thierno Birahim mu am ci soxna Daba mu am ci sëñ soxna Faati Thierno soxna Faati Thierno ñu jox ko sëñ Moustapha mu am ci soxna Daba mi nekkoon jaareem ginnaaw bi ñu jox ko sëñ Basiru mu am ci soxna Ami mii ci mii ci daal mi am yàlla ko fi yàlla yàggal di wéral ko gannaaw booba nag soxna Sadio moom yi itam dem na kër maam bu Kunta am fa sëñ Modou Kunta ak soxna Astu Kunta sëñ Modou Kunta moo jur xalifa bii fi jógee bu yàggut muy sëñ Mambour Kunta ñu ngi siyaari njabootam bu baax a baax so soxna si daal noonu la demee ci réew mi xanaa sëñ Fallou Galas ñu jox la kàddu gi eh, ba ci kanam ñu dellusiwaat ci leeral gi. jërëjëf jërëjëf jërëjëf eh, jërëjëf eh, Baye Serigne Mbacké. yaakaar naa ne li ma doon wax ne mag ñi ko ci gone yi jànge ci feeñ na ci histoire ci li nga indi tey tey da gis ne ndakate Sénégal buñ ko waxtaanee ñu baax ñëpp ñoo bokk ndax sëriñ bi lim doon indi néeg yu bari feeñ na fii boo delluwaatee ci kër Maxtaar Ndumbe dana ci feeñ waaye boo delluwaatee itam ci kër yaa ba xari maam da ciy doon benn ba tey boo demee ci kër ah, almaami Ahmadul Mahdi da ngay gis ne lislaam moom ndaka jekk ñi ko seqoon ñoo ko bokk bokk bu bari feeñ na fii ci benn buntu kër yi diine yi ak xëttale leen ci liggéeyub sëriñ Touba kon jërëjëf ñu ngi sant xam naa daañu jël siwaat ci ginnaaw bu mu feeñee jamono fan la jàng alxuraan ak fan la yaroo ginnaaw bu ñu xamee ne ndakate moom ci mag ñi la bokk sëriñ bi bàyyi na ko fi soog dem ci géej gi ginnaaw mu fi bàyyee euh, ñi nga xam ne moo di ku mel ne Cheikh Mahamadul Moustapha ak Cheikh Mahamadul Fadal Cheikh Mahamadul Basir Cheikh Mahamadul Amin euh, soxna Fati Penda ak ku mel ne soxna Mariama Kunta nga xam ne ñooñu ak soxna Fati Dia ak bokkal sëriñ bi bàyyi na leen fi soog dem ci géej gi kon man loolu nga wax ne ci mag ñi la bokk ci la bokk waaye dañuy ñëw nag ci tawub Cheikhul Khadim bi di soxna Fati Dia sëñ Mor ba ñoom ba ginnaaw sa nuyoo ba noppi ni ñu sëñ bi leerale kan mooy soxna Faati Penda bëggoon nañu xam it kan mooy soxna Faati Ja mi nga xam ne mooy taawu Seexul Xadim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin alamin wa ala alihi wa saxaabatihi algurri almayamin wa ala xayri xadimihi dilxabli almatin wa ala man iqtafa atharahum ila yawmi ddin boo ko jullee di asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bi nu santee sun borom subhaanahu wa julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam tey jaajëfal Cheikhul Xadim noo ngi nuyu mbokk yi yu ñu teewle nekk <coughs> nuyu bi ñu nuyu nag sëñ Hamdil Moustapha mi nga xam ne mooy jëwriñu kër gi <coughs> eh, kër soxna Faati Mbakke soxna Faati benn Buyo soxna euh, Faati Pend Buyo ak nuyu bi ñu nuyu njabootu sëñ euh, Mbàkke Kajoor gépp ñu teg ko ci loxol sëñ Abo Miir nuyu bi àgg ci kilifa yëpp sant sëñ Mbàkke itam ci leer yu am solo yi leeral ci laaj ñu ko laaj ci soxna Faati Pend Buyo ni ko waxee mag ñi ñëpp daanaka benn lañu benn bopp lañu nuyu la sëñ Fallou Gale Sylla ñaari fàllu gala silli <laughs> naa ñu ñëpp defe naa ñoo ñëpp waa tay ba la ñu <laughs> nuyu leen nuyu itam ñi teew la ñu ak fu ñu maa bokk yépp soxna Faty Dia <coughs> mooy taaw Seyxul Xadim wax nga ko euh, moom la Sëñ Tuubaa njëkk a gis ci lu ñuy tudde njaboot di doomi soxna ja Touré soxna ja Touré bàyyi ko woon lappe njëkkoon koo jox nag sëñ Mbàkke Anta mi taw sëñ Mor Anta ak soxna Anta Njaay Mbàkke moo ko njëkk a yor waaye ci bañ nekkee pataar ñu xëy benn bis sëñ Mbàkke Anta wax sañ Mor Anta Sali waajuram ne ko ñaari jant ka xajuñ ci seen asamaaw man damay sooba fi sëñ Bàmba ci suba gi la ko wax ca ngoon mu daal di wàcce ab liggéey ñu ko ci njaañ soxna si liggéeyee nag ba ab liggéeyam àgg ci lañ koy jox nag rakkam ju tedd jooy Seexul Xadim mu taawloo ci soxna Faati Jéem yi ñuy waxtaane man ko wax nañ da ko tuddi soxna Faatima bintu Rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa doon de bi am na ay Faatima yu bari ndax mbokk mi ñuy waxtaane mooy ci Faatima yi la la bokk ak yeneen Faatima gannaaw bi nag la sëñ bi am ndigalal boroomam ndax sëñ Tuubaa def lenn lu may ci ndigal boroom la ko defee moom ndigal boroom ci nag yëkkati soxna Dia Touré moom yi jox ko mën naa ne rakkam sëñ Mbàkke soxna moom maam Abdul Xaadir moom maam Bala Aysa boobu sëñ Mbàkke soxna maga Saalum sëñ bi yónnee ko ko sëñ Ibrahima Sarr Njaañ abiyaatam yooyu ko Sëñ jasaaka ya mhm. loolaa ko laloo ko indi mhm. ndax bi ko Sëñ Tuubaa di yóbbulu Saalum booba àll bi lëndëm na tojogut lu ne ngi fi comme bëgg yabal nga yóbbu ko rek nga joxe ngant mhm. ñaan yëpp bañu jëli bind tax fekk seeb saar boo dafa génn néew fi bi ñëwee nag dégg na sëñ bi am doon doon santaane tam jafe li ñu ne ko daa mel dafa am loo doon distaane mu ne ko boo ko santee danaa ko def xam ne bi nga ko takkalee nga xam ne wax nañ ne yóbbu na ko ba àgg bëtam bi tegut ci moom nga gis yarub Sëñ Tuubaa ak mag ñi nii sàmmoo woon mu takk ndiggam ba dëgër ñu war a soxna si mu jàpp ci laab yi di wombat jaar ci xuus ci àll bi ba àgg saal mu jébbal ko Sëñ Mbàkkant sëñ eh, Sëñ waaye ngir worma ja ak lañ leen yare nam ko womate woon dem noonu la ko womate delsi ta boo kenn waru ci moo romal soxna si ci wàcce moo tax ne wareetu ci fas yu ban ban ban yooyu moo tax moo war jasaaka jooju sëñ Tuubaa tagg mhm. loola loolaa taxoon mhm. bu joxee sëñ Mbàkke soxna moom nag ca la am ñi mu bokkal soxna Faatija te bokkuñu bàyyi muy sëñ Abdou Dia Duyooli borom Duyooli ñu seer wax sëñ Maam Balla Mbàkke mi ko fi nekkal mhm. ab xalifaam am ca sëñ Ibra Dia mi waajuru sëñ Seex Mbàkke sul mbiyaax ak sëñ du Mbacke ak sëñ Alhaji Mbacke mii fi nekk tey di ab xalifaam. <laughs> am ci itam soxna Xarija. mi mm-hmm. waajur sëñ Abdou Xarija Bousso moom sëñ Ibrahima Bousso. Mm-hmm. am ci soxna Bousso Dia. Mm-hmm. Ah, mi waajuru sëñ Basiru Moor sëñ Mamor Pakala. Ah, sëriñ ah, Baara. Eh, di bàkk sëñ Mor Soxna gannaaw bi nag maam si teg eh, teg ca sëñ Modou Mbacke moom sëñ Baara Xuree gannaaw sëñ Mor Soxna wàcce liggéey lañ ko jox sëñ Baara moom kon ñuy siyaar baax baax sëñ eh, Taala Mbacke mi nga xam ne tey jii mooy moo toog jataayub eh, Soxna Fatou Dia Mbacke mm-hmm. kon nii la deme ci bokk mm-hmm. mu gënee àdduna nag ca Pataar moom Soxna Fatou Dia mm-hmm. atum 1878 ñii ne 1879. waaye mhm. daal ci diggante boobu la mooy fekk na fi suñ borom sali. dëgg la. moo tax suñu tubaab daanaka wax ne ko nag bul samaam ndax moo la tuddoon. suñu borom mhm. sali moo ko tudd. Mhm. ci at moom la gane àdduna euh, dikk nag bu ñu doon tënk daal euh, kan mooy soxna Faatija dañu wax ne hiya mu'minatun wa muslimatun wa muhsinatun wa muridatun sadiqa loolu bu ñu ko firee daanaka mooy mooy mooy waxtaan bi mooy mooy mooy soxna Faty Mbacké <laughs> euh, kon mu bokk ci askan wu tedd wu sell ndax soxna jëturu mu ko lappe ci mm-hmm. la bokk mm-hmm. askan ndax Sëñ mm-hmm. ci ndéegum ngor ndéegu alxuraan ndéegu diine la daan tànn ñami soxna jëturu ne bàyyi ko lappe bokk ca ñooñee meññif soxna Faati Jëm mii nga xam ne mooy ab taawam mu tudd soxna Fatima. macha waaye itam Sëñ Tuubaa nag méngoo méngoo léppam nag. Mm-hmm. ndax booba fekk na am na jotug jàngale. moo tax njàngum soxna Faati Jëm Sëñ Tuubaa seqoo ko kenn. moo ko jàngal moo ko tarbiyal boppam moo def ci moom lépp. Mm-hmm. na ko sëñ Musaa Ka waxe ne moo jare jox hadiya taaw la tab la. baayam ba jàngal na ko baada xabla. la allah. <laughs> baada xabla kon mooy moo ko jàngal moo ko jàngal diine rek la bëgg a wax. dëgg <laughs> moo ko jàngal alxuraan moo ko jàngal diine moo ko jàngal boppam lépp. ba ba ba xam la mu war a xam. <laughs> Eh, mu def koy ca ca yar ba nga ko yar na ci la ko def nag yooyu ma tudd ci la ko def nag ku gëm yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg. doon itam ku ku nangoo wombatu wombatu ci lislaam wombatu gu wér. wax ne ña fekk jotaay ña ko fekk ñëpp seere nañ ko. waaye nekkoon ko rafetal itam diggam a boroomam mhm. ci pa ci ci ci pas-pasam ci jëfam ci léppam diggante a ñëpp seex ay bokkam ñëw seexal at lépp lépp mu rafetal la la laaj lépp ci diggam a boroomam diggam ñu seexal lépp mbatal ko sëkk waaye nekk murida saadiqa joo xam ne mhm. euh, la koy la koy saxal ak dëggal incha allah ci kàddu ji dañu ko leeral incha allah ndax Sëñ Tuubaa boobu moo ko ko seeral boppam moo ko seeral la boppam loola jërëjëf jërëjëf euh, sëñ Mor xam sa diine jërëjëf itam bokki auditeurs yi nga xam ne ñoo ngi ñuy topp yaakaar naa ne ñaari Fatima yi buñ leen jàngatee ci biir waxtaan yi buñ leen xoolee dañuy xam ne ñoo bokk néeg buñ bàyyi ko daanaka ndax mooy néegub diine buñ leen bàyyi xoolaatee itam ñooy bokk jënn jikko ndax benn yar bi ñu am waaye liy dëggal rek ci li sëñ Mor waxoon ne mooy taawub Cheikhul Khadim moom ku ne xam na ne bi sëñ Mbàkke Anta di nelaw booba sëñ bi tuut tànk la ci zaayir ndax ñu ay atam du ëpp ñaar fukki at ak juróom-benn jàpp ñaar fukki at ak juróom-ñaar ci jamono jooju lañ ko jox soxna Faati Ja kon ndax bokk na ci sëñ Mbàkke Anta ki mu bokkal ndey ak baay muy maam Cheikh Anta tuut tànk la ñu ne kon kër gi mënee sut a ñàkk kuñ ko jox ñu daal di koy jox sëriñ bi ci ay at yu néew ñaar fukki at ak juróom-benn jàpp ñaar fukki at ak juróom-ñaar loolu kon mën naa tegtale sax ne soxna Faati mën naa feeñ 1878 jàpp kon koy day mel ne itam li nga wax ne sëñ Mbàkke Mor Anta Sali moo ko jox aw tur tudde ko soxna matu bintu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon kon ma di ñëwaat rek ci ki nga xam ne moo di soxna Faati Penda ndax noonu lañ koy eh, awante rek léegi sëñ bi ginnaaw boo ñu indilee gane eh, juddu soxna Faati Penda ak i bokkam léegi nag dañuy dugg ci wàllu am njàngam ak bu yaram. jërëjëf sëriñ Fallou Galassi la. jërëjëf sëriñ Maam Mor xam sa diine ñu ngi nuyu bu baax a baax sunu mag sunu xarit sëriñ Talla Mbacke ñi nga xam ne mooy mu mag ci tey ci njabootu Soxna Faty Dia di siyaare mbooleem eh, njabootu Soxna Faty Dia Mbacke gépp eh, loolu yi nga ma laaj nag ci Soxna Faty Penda Bouyo hmm. eh, moom yàlla dafa dogal waaye juróom bu jigéen ñu joxoon ko Serigne Mor Diarra borom saam hmm. moo tax ci kër borom saam fa la yaroo hmm. borom saam moo ko jàngal alxuraan eh, ba mu wattu ko hmm. dañu wax gannaaw ba yabal na ko sax ab diir ca sëñ Ndam Abdourahman waaye ne ko laajalaat boppam nga xam ne eh, bare ci njàngam daal ak njàngam mm. xam-xamam. Mm. borom saa ma ko def. mu doon bu am xam-xam nag. Mm. te eh, am na lu bare lu koy firndeel. Eh, eh, lii ñuy waxtaane muy digganteem ak soxna Faati Jam yi mm-hmm. wax nañu ne sëriñ bi sax yabal na ko ci soxna Faati Jam na ko soxna Faati Jam nga xam nga sëriñ bi moom. Mm-hmm. Euh, léppam rek am jàngale la. Mm-hmm. yoo wax ne euh, soxna Faati Ja fekkoon na sëriñ bi ni ko sëñ Mamour waxe am jot jotug jàngale ak yar ak tarbiya euh, bi mu defee loole ci moom ba noppi lu ëpp ci ak njabootam boole na leen soxna Faati Ja ba ci soxna Faati mi wax nañ ne boole na ko soxna Faati Ja mu mm-hmm. am fa ab diir lu jiitu mu di ko jox sëñ Mamour Mbàkke Galam gouvernement bi nag la ko laaj jox ko sëriñ nekkee Jolof bi sëriñ bi nekkee Jolof mhm. ci la ko laaj nag jox ko sëriñ Amar Mbàkke Gelongal mi mhm. nga xam ne seen ñaari maam yu jigéen ñoo bokk ndey ak baay mhm. ndax roqee xojo kumba mi nga xam ne moo jur pende bu yóbbaa mu jurul soxna faati faati xujja kumba moom bokkal ndey ak baay moo jur pende bu yóbbu jóob jot sëñ Omar Mbacke Gëlam Ndal mhm. kon ñoom seen ñaari maam ñoo bokk ndey ak baay mhm. ah yàlla dogal sëriñ bi yoroon ko mhm. moom moo ko jàngal moo ko yar moo ko tar bi eh, eh, loolu moom ñu bari miin nañ ko sax ci nettali sëñ sëñ Thierno Mbacke Gëlam Ndal loolu daanaka du ci jërul ma di ci xusaat waaye eh, sëñ bee ko yàllal boppam daal jàngal ko ñu ñibbisee nag ci tukki bi ba nekk Jolof bi mu dem Mauritanie it da ko yóbbaale moom sëñ Omar bi mu ñëwee ba Jolof nag fa leen tarbiya moo euh, njabootu boppam bu jiitu gu mel ne sëñ Mor Moustapha ñoom ak sëñ Fallou ak sëñ Mor Roqee bu si ñoom ak ñu bëree bëree bëri ci euh, njabootu sëñ bi foofee la leen tarbiya la hmm. fale leen sampale ay kërit sëñ Omar tànnal ko doomi doomi boppam muy soxna Faati xam ne seen ñaari maam ñoo bokk ndey ak baay. Mhm. Euh, fa ko joxe euh, sëñ baa ngi jolof euh, nekk na fab diir ginnaaw bi nag fa la joxe fa la ko jox siñ Amar. Mhm. sëñ Modou Gelaw Ngal mi nga xam ne mooy mag ci njabootu Soxna bi muy gënee àdduna boobu sëñ baa ngi jolof mm-hmm. sëñ Modou nag moom mi ngi gënee àdduna Mbàkke Bawol ci kër Maam Jaara fekk na soxna Faati mm-hmm. booba mi ngi bisi nekk ci soxna Penda bu yooyu ci kër sëñ Maam Mor Jaara mm-hmm. yàlla dogal fa la gënee fa la sëñ Modou gënee àdduna xam naa du sori mujjug jolof ndax mas na maa toog ci si Abi Mbàkke imam mu wax ne moom mu ne sëñ Modou ànd ak sëñ Modou Galaw nga mu wax sëñ Modou ne ko xam nga nuñ demee maag yow ci ak maga mm-hmm. sëñ Mourou di ko déedéet mu ne ko man di eh, li sëñ bi am jolof loolu laa la magee mm-hmm. man damay ci weer wu njëkk ba yow ngay ci ngay ci mujj ga li sëñ bi am mm-hmm. jolof mooy li ma la magee eh, ko ba sëñ bi ñëwee jolof eh, ba sëñ bi ñëwee jolof man ci weeru njëkk ba ca laa feeñ yow nag ca mujj ga ca nga feeñ yaag soxna Mariam moom sëñ Modou Moustapha la ko wax sëñ Modou kon xam nga lu jiitu njaareem rek. day mhm. daal dugg ci 1911 ndax sëñ bi dañoo wax ne janvier 1912. Mhm. ci la ñëw moo mhm. kon foofu la sëñ Modou Gala Galongal gane àdduna ci Mbàkke Bawol ci kër Mamour Diarra. Eh, yàlla dogal foofa sëñ Soxna nekkoon ci yooyu jamono. ginnaaw bi nag bi sëñ bi jógee. Jolof ba ñuy ñëw njaareem hmm. ci la digal sëñ Amar mi nga xam ne moom la nekkaloon hmm. mu ñëw Touba sanc fi ñu bokk fi ne kon soxna Faati ñi njëkk ci njëkk a dëkk ci dëkk bi ci la bokk hmm. ndax jamono yi sëñ bi jógee Jolof ñëw si ñëw njaareem daal jamono boobu la digal sëñ Amar ak njaboot gi yëpp ñu ñëw Touba daanaka ñu ci bari ci njaboot gi. Mhm. ñëw dekk Touba. Mhm. boobu yële soxna Faati ànd ñoom ñu dëkk Touba. macha allah waaw noonu la demee. Mhm. fa daanaka ab liggéeyam Touba la ko la ko defee. yàlla dogal na gudd aw fan ndax 1930 la fi jóge kon gannaaw sëñ bi ñetti at rek la fi amaat. waaye nag ku ñëpp ràññee woon la ci jikko yu rafet. ak yaru sëñ Touba ba nga xam ni moom la def ci moom di borom xam-xam. ndax euh, euh, sëñ Seex Mbàkke nga xam ne mooy moom sëñ Modou Galaw Gal mm-hmm. ak sëñ Sidi Omar kenn ku ne nettali ne ma ne ma bàyyi sëriñ Jatara nee na ma bàyyi sëñ Jatara ko si sëñ Jatara moom nga jur sëñ Moustapha Jatara ñu mi nee mm-hmm. eh, na soxna Faati moom bari téere yi ñu njëkk jàng yoo xam ne moo ko jàngal mm-hmm. kon loolu lay tegtale ne eh, ab jàngalekat la woon la itam ab yarekat nekkoon ci dëkk bi itam eh, di Eh, ku ñëpp xamoon daal ci liggéeyal Serigne Touba nekkal ko fi. Hmm. nekkal ko ci njabootu Serigne Touba ga fi nekkoon. Hmm. ba ci sëñ Saliou Mbacke mii daanaka ku ko saan nuyu ci noonu. Hmm. dañuy wax ne eh, soxna Faati de damaa féetewu woon ndax bii sëriñ bi bi leen andee ko sëñ Amsatu Jaxate te booba sëñ Amsatu ak sëñ Omar bi ma sësu ay kër. seen lépp soxna Faati ko yoroon. seen toppatoo ci seen i seer ci seen lu bari ci seen Eh, soxna Faati moo ko féetewu woon ci ndigalu sëriñ bi hmm. eh, di ci liggéeyal sëriñ bi hmm. eh, tax na foofa la féete woon hmm. féete fa bokk yi yëpp nag ñu bokk yi yoonu murit yëpp kenn ku ne amoon na ak yow alaaka boo xam ne bu rafet rafet la woon waaw ah, yàlla dogal na nag gudd aw fan waaye bàyyi na fi jëf ju ju rafet macha ndax nee nañ sax ba ci màggal Tuubaa gi gu gi sëñ Modou Mbacke doom nettali ne ma ne ma soxna Faati mooy ki ko njëkk tàmbali ci Touba. ndax bi ko sëriñ bi wootee te booba sëriñ baa nga njaareem. nee sëriñ bi da daan wut ñeent juróom-ñett fukki xar. nee na ñeent fukki yëpp sëñ bee koy séddal boppam ci loxoom. ca njaareem. Eh, ku ci war a am am xar mu jox la ko ñaar ñu war a bokk am xar mu jox leen ko. waaye ñeent fukki kii ci des yëpp di ko daan si yónnee sëñ Omar fii ci Touba sëñ Omar moo ko daan séddale fii ci dëkk bi ku ci war a am am xar ñu jox la ko ku war a ñaar ñu war a bokk am xar mu séddal leen ko buñ ko yendoo ba ca ngoon nag soxna Faati day woote ci kër sëñ Touba gii kër gu mag gii ñu tuddee Touba tey hmm. ndax booba daaru xuddoos la woon daaru hmm. minan di gu beru na hmm. def nag kër gu yaatu goo xam ne moo tuddoon Touba muy fii kër sëñ Touba gi nekk ak penc meeg jumaa ji ba ca euh, nekk fii ba ca kër sëñ Saliou lépp genn kër sëñ Touba la woon mhm. yoo xam ne sëriñ bi da ko senge woon nee na ko senge woon ci suuf sengee ci kaw mhm. nee na nag foofu la daan wootee nag ñi fi nekkoon muy jànkati kër sëñ yi ak jànkati kër sëñ Omar yi mhm. ñu fanaan fa euh, ci màggal bis boobu yi bu bët set te booba sëriñ baa ngi jariñ bokkoon na ci ab liggéeyam boo xam ne hmm. moo ko sos macha allah waaw fii ci Touba gannaaw bi nag la 1930 euh, la génn àdduna macha allah moom gannaaw sëñ bi ñetti at rek la fi am hmm. moo Seex Ibra Faal ñoo bokk mel na mu ñu génnee àdduna macha allah jërëjëf jërëjëf euh, sëñ Mbacke euh, histoire yee tax mu am solo ndax ñiy faral di nettali ñu mën a am fu ñu teg seen tànk ba mën a wax lu leer ndax soxna Faati da du gone gis naa léegi sëñ jili dama xamal ne 1892 la feeñ jamono da ngay xool ne kon diggante 1892 ak 1878 kooku da koy mage lu toll ci fukki at ak ñett waaye gis nga ne seen jikko yi jenn jikko lay doon seen melokaan yu wenn lay doon loolu moo lay xamal ne sëriñ bi amul gone bokk it ci ñi ganee àdduna Touba. bokk ci ñi njëkk a sanc ci Touba ndax gane àdduna Touba mooy sëriñ bi amele Touba dem ci géej gi dellusiwaat 1912 woote njaareem yabal leen ngeen ñëwaat ngeen ñëwaat Touba ndax wax nañ ne sëñ Omar Mbacke Garaw Ngalak sëñ Falloog sëñ Mourou Moussa sëñ ma Massamba ñëpp sëñ Touba danañ woon dem leen nekkal ma Touba waaw kon day mel ne kon loolu eh, day tegtale ne kon soxna Faati moom nee à Touba daal moom léppam Touba la waaye kon sëñ Mor nii ñu ñëwee rek ci soxna Faati lañuy ñuy ñëwee waat ci soxna Faty Dia ndax nag sëñ Fallou daanaa dégg mu di ko wax naan ko yaay mag yaay mag buñ koy wax dañuy yàpp ne dañ naan ne yow yaay mag déedéet waaye sëñ Fallou nee na yaay la mag la mat nañu yaay ba noppi di mag xam nga sëñ Fallou moom daa doonoon ko yeewu ndax koo xamante ne bii sëriñ bi ay vingt 26 ans la lay magee yu demee noonu nga def taawam kii tam kii ganee àdduna Touba bu magee ko fukki at ak ñett sëñ Mourou Moussa ak sëñ Fallou ñoom faaw mage leen lu jege fukki at ba noppi nag fekke fekke yu baree baree kon day mel ne moom it dañuy ñëwaat ak moom rek ci diggante bi mu feeñee jamono njàngum alxuraan ne nga sëñ tubaa méngoo lépp waaye nag ab jàngalekat la woon ci ndigalul sëñ tubaa waaw dëggal xam nga bi sëñ tubaa di woote yoon murid mi asasi daa fekk muy doo toll ci daal alxuraan ndax booba juróomi atam juróom jàpp juróom benn ci la toll allahu akbar xam ne kon mbàkke kajoor la ko dalale daal koy indaali mbàkke bawal ndax ci biir asasi la sëñ bi jóge mbàkke kajoor ñëw mbàkke bawal indaali ko mhm. waaye fa am njàngam am fa asasi basasi jasasi mhm. dasasi mu sanc daaru salaam mhm. yóbbaale waat ko foofa mhm. ci diggante boobu nag ni e, nekk daaru salaam na foofu la njàngum alxuraan mu àggee mu tàmbali ci moom njàng njàngum xam-xam boole ko tërbiya gi waaw ak tërbiya am dëgg dëgg dëgg nag Tuuba te tërbiya gu metti la ko suñu Tuuba tërbiya nag waaw ñoom tarbiya si Abdou Fall si Issa Dieng si Moussa Diop Samb ak ña ña dem ñoom. Mhm. noonu la ko tarbiya daan nett li la Touba njëkk ji de woon na lool ndax boobu mooy ba nga xamee ne suñ masaan xëy kenn ku nekk dañuy tibb benn nga jox la. la wax du doon sax suuna waaye lee doon wala saañu <laughs> nga yeey ba nag joxee li kubéeru sat la ci ndox jox la nga naan ba waxtu neex la doon nga bu baraay. bi Touba neexee. bi mu la doon nga bu baraay. waaye bu njëkk nga bu pepp la woon boo xam ne saañu wala wala basi lay doon. la ilaha illallah. mu ne ñun jigéen ñi Sëñ Tuubaa moom daan joxal boppam suñ suñ wàll mooy ñëw ku ne mu tibb jox la léeg-léeg ñu am tawfeex mu toog bañ jëfandikoo mu nag mu door dem léeg-léeg nag mu tab ja jox ñu daa dem bu ko dee am na doo ngay wër ca sàkk ca gannaaw sàkket bu demee ñu daal wër wëri ñëw nangu ko ci noonu toll ci noonu. nga xam ne kon tërbiya gu metti la te ne boo néeg sëñ boo fa duggee dara doo fa jeex lu ne nga fa waaye duñu ko jox ndax ndax ndax bëgg a yar bakkat rek mm-hmm. ay muuraake ay miska lépp ne ci biir néeg sëñ bi mm-hmm. waaye duñu ci jox daal lépp ngir ngir tërbiya bakk ndax bakkat yi la doon tàggat mu doon tërbiya mm-hmm. kon foofu la ko tërbiya def ko nag murida saadiqa bi mu doon loolu na tax na mu doon ab jàngalkat doon ab yarikat waaye nekk jaam ko te yàlla bu wóor ndax suñu tubaab comme da nga yàlla da nga nangoo jaamu yàlla. Mhm. da nga doon ko sàmm it. dëgg la. yëpp daje ci jikkoy soxna si. Mhm. tax na mu doyloo woon ko ci yar ni nga xamee ne ay nit dañ daa jébal mu yebale ci Seex Ibra ngir mu ngir ngir mu tërbiye leen. Mhm. yebale ci Seex Musaa Biyo Samb di yóbbu ca noonu la bu doon jigéen day lay yebal ci soxna Faati ca Mbàkke moo li ëpp ci njaboot suñu Tuubaa moo leen jar. dégg si bàyyi si Mbàkke tudd na ko léegi soxna Faati Mbàkke yebal na ko noonu la fi yabaloon soxna Maymunatu Kubra. Mm-hmm. gannaaw boo am jàng ak gën ko demal sa demal jàngal la ak taalibe. Mm-hmm. yabal fa soxna Mbène Ngaabu. Mm-hmm. yabal fa soxna Astu Gaawaan. dëgg la rek mën nga wax ne moom la sëñ Tuubaa leen moo leen boole moo leen yar. ko seere boppam. ab benn da ko mas a fekk njaareem. nuy gën a ko jaar naa fi gis naa sa doom ji ñoo Fatima. sëñ Tuubaa ne ko innaha la muridatun sadiqa allahu akbar waaw sëñ Tuubaa ko ci làmmiñu boppam allahu akbar murid mm-hmm. murid murid murid bu jigéen bu dëgg la ngoogu mm-hmm. murid googu nag da ko dund ci biiram ak bitteem ñëpp ñëpp xam ko ci moom mm-hmm. ndax ñi mag sax ñi xam ne mag leen lu bari ñu doon jàpp sëñ Tuubaa daan daan wut ci ñoom sëñ Tuubaa dëgg la dëgg la di xool ñoom sëñ Tuubaa di sàkk ñoom sëñ ndax sëñ rek la gis booba dund gi ngeen dund mooy lépp mooy war ma ju ma sëkk sëkk sëkk sëkk bi mu nekkee soxna soxna may mas nañ nettali ne dafa ñu mas ci Daaru Salaam mhm. mu xëy di doxantu soxna may di ko santu mhm. bi ñëwee ba jubaraay bi mhm. ñu dégg saxaar gi yëngu jógi Tuubaa soxna soxna daal su summi ay daal ne ko may mën a summil say dàll ñu màggal gan googu jóge ci Sëñ Tuubaa la ilaha illallah. ànd ñu summi seen daal àgg suuf ngir màggal saxaar gi ngir lim jóge ci sëñ Tuubaa. dëgg la. tax na itam moo gën a xam sëñ Tuubaa ñëpp ndax lim ko yar. Mhm. ndax moo nee naa la moom yaram lépp. borom mhm. mu xaman ko lool. Mhm. xam ci lu ci kenn xamut itam. daa ko waxtaanee. ñam yar itam ñëpp ñëpp koo ca gis day mel la la newoon def na ko ci muy muy muy taalibe gu sonn. mën naa ci tugg mais sonn may mënut nga xam ne. Euh, d' moo ko tërbiyee ba noppi moom sonn may ku amoon taalibe la. dëgg ñëw fekk sëñ bi génn gut mu ñëw toog rek fi ni mbooloo mi toog. Mm-hmm. yor banque bi sëñ bi toog noonu. Mm-hmm. am na menn mbokk mu bokk moom euh, ku demee ni mu demee. Mm-hmm. daal di agsi yëglu ñu yóbbu ko ñu àggale ko ci biir mu gis sëñ bi euh, dafa dellu dellu. Mhm. romb ko gisu ko nag ndax dafa mel ni xaw a làqatu ci banque bi noonu. dëgg la waaye mooy kilifa mhm. euh, euh, ko doon def nekkoon nekkoon. mbir ki laan mi mi nekkoon ko doon nettali nee ne ko ah soxna si li nga def tey ja li nga def tey gag naa ci. Mhm. ndax ndi sa mbokk mi fi ñëw léegi ni mu def moom te woon nga def na nga yëg lu ñu yëgal sëñ bi ne boo yëgoon ne ñëw nga daan la ak daan ci biir mhm. mu ne kone kone ak sag jagle xëy na loolu da koo sañ waaye man waaye man man lii rek ak taalibe <laughs> mas naa ànd itam ak menn mbokk mbusoo bi mhm. fekk sëñ Fallu ndindi mhm. fekk dafa woor sëñ fekk sëñ daal xel kafe jox ko mu naan boppam bu sawee di ko tooñ ne ko ah da nga nga ma mën a am bi wóor nga xam a am ci koor gi mu dit mhm. dafa àggale ba ba noppi fay ko kon loola te loon lépp na soxna Fat Jëm ko def ci moom macha allah ña jaar ci moom ñëpp koo ci koo koo koo ci tudd rek mën mhm. nga caa seere lu mel noonu mhm. taalibe bi nga ko naa ci natte benn xisa sëriñ Sayxu Sala Mbàkke mhm. bis soxna Faty dafa yónnee ne ci sëriñ Sayxu Sala ne ne ko bu subaa na mu wuy si mhm. dawal dem ci sëriñ Sayxu Sala wax ko ko ne ko soxna Faty nee na daa bëgg bu subaa nga boo xëy nga ñëw fa dalaa soxla mhm. sëriñ Sayxu nee na ma xëy daal di dem ko soxna Faty yëpp ma demee fekk ko mu génn neen toog naa yàgg naa fa lool ba xaw faa yoon rek de bay ba tisbaar daal la la la doon na janet bi ma gisee daal tudd yàlla ne ah sëñ Seexu mbaa yàggu fi ma ne ko mbak léegi laa fi ñëw mbakki mhm. ñoom seenu taalibe la mhm. ma ne ko man kat dama laa xëy wool ba noppi fàtte ko dama xëy rek ëmma leen lu ma def man naa dem doxante ci àllu fett bi ndax sëtu xaaxaam bu jamono suñu waa jàmm mu barkeloo ko daal ah, da léegi nañ nañ nañ lalal sëñ sayxu ñu mhm. daal di indi ay laltaay lala lala ba àggal ma mhm. ko sëñ sayxu toogal nii mu joxe ngànt mhm. mu xaar ko mu joxe ngànt mu ne ko ndigal la loolu kama kama daa digal ka ma daf maa waxoon ne ma su ndigal dajee te ak teggin na nga bàyyi ndigal te jëfe teggin mu ne Basiiru bindal loolu suñ Bas Mor bind ne ko ah, lu taxoon wax la ko nag ne ko boobal dafa nekk ci bunt néeg boo xam ne dafa am ñaari bunt mhm. mu toog ci benn bunt di bind di bind ba weer foofa ay këyit ba mu fees mu jóg dem toog ci beneen bunt ba di bind mu yàgg ne ma sayxu dugal ci néeg bi jox ma nangam kon mhm. ndigal jëm na sëñ Tuubaa toog ma fëx ndaw mhm. ba ci wunt bee taxaw fëxaat daw ba ci wunt bi taxaw ma def ko ay yoon mun ma sayxu ba ba dangaa mënta jéggi saw mbind man ko waaw Mbacke xam nga ñoom mag ngi daaw wax suñu duwaa déedéet xam nga déedéet moo fa gën a jàkk waaw waaw nga eh, mënut a jéggi sama mbir ne ko waaw Mbacke hmm. nag maa a jéggi it mu ne ko waaw Mbacke mu ne xaaga saa noonu la su ndigal dajee ak teg na nga bàyyi ndigal jëfi teggin macha allah kon noonu la doon dundee Sëñ Tuubaa nga xam ne moo ko gën a xam ñëpp waaye teewut ku ñëw kon daan la ca laaj la nga ca xam hmm. eh, te ko bind lu sax lépp lépp ngir bëgg Sëñ allahu akbar di barkeelu ci njabootu Sëriñ Tuubaa gi Sëriñ Basiru Mustafaa ñëw mu ba mu laal koy mbaaj ci tooge mu toog ba mu jógee dafa ut paanum ndox jël mbaaj mbaaj ma xooj ca daa ca naan ay gox ne ñëw leen barkeelu doomi Sëriñ Tuubaa ci toogoon. <laughs> xam na ne mbat na waajur Sëriñ Basiru. waaw waaw. dina doomi Sëriñ Tuubaa def naa Sëriñ Abdul Ahad la ñëw na fa bay dem. Mm-hmm. mu tibb lu pneu oto bi ngir barkeeloo ko. ci ruyu mm-hmm. jaar. Mm-hmm. ñun ñii ba tey àgguñ foofu ci tali bi. déedéet jegewuñ ko. jegewuñ ko sax <laughs> kon moom noonu la meloon. macha allah. xar baax yëpp lu ko ci masaan kii lu ko rëcc lay doon rek. Mhm. waaye bëriwul luñ koy koy feeñal xar ko bokk xar ko Adam. Mhm. ko jàpp. Mhm. ba yëre dina ci kanam yooyu daal mooy génn waaye a kenn mosu ko photo mu génn. soxna May mii ma la wax. daanaka moo ko yar benn photo la am. biñ ko bëggee photo. ne ko dañ ko bëgg a barkeeloo mu ne ah loolu ko sëñu ma ko lu may dama ca laaj ndigal sama sëriñ soxna Fatia. Mhm. daal jóge Touba Kaolack boo Kaolack la ko waxee mu ñëw Touba mhm. tàggu soxna Fatia mu ne ko amoo ci ndigal. Mhm. amoo ci ndigal. bañ tegaat yàgg mu doon laaj ne léegi am na ci ndigal. mu door a woo woolu photographe mu door a yóbbu door ko photo. koy def naa koy laaj ndigal ba laaj ndigal ci photo. <laughs> lool lool lool. allah. kooku taalibe ju ne mujj ko. dëgg mu doon dund ci biir di allah bokk na ci loolu it. mooy mm-hmm. mas naa ànd ak soxna May. Mm-hmm. ñu jógee Touba jëm Darou bi ñu wàcc fii alt bi xam boobu alt Daaru Salaam alt lam fii mm-hmm. lam faal nekk tey mm-hmm. moo doon altu Daaru Salaam mm-hmm. soxna may laata soxna Faty muy ñëw ci sawar ni ko te nga jàll jàdd ak doomi Sëriñ Tuubaa ci nekk naa mu wax ko daal waxi safoor daal di wàcc dox waaye ba ñu wàcc safoor fam fam taxaw noona moom tàllante ba gën oto dafa dafa pan amul werante nekk na boo waxtoo desuwaat ci suba sama door defaan doon macha allah <laughs> kon kon loolu itam xar baax la <laughs> dëgg la yooyu lu ci masaan am de lu ko lu ko rëcc lay doon rek waaye bëriwul lu mu ko daa lu mu ko daa dëgg la jërëjëf ci xam bi Sëñ Tuubaa nag mhm. naa ci tudd leen rek mhm. kere bi mu njëkkee dégg sëñ bu so ilimaan sëñ bu so fatikaan ni mhm. muy jiite ci jumaa ji mhm. mu ne kooku kan la ñu ko sëñ Boussa Fati kan ni mhm. dafa daal di jug ci naaj yu sulti daal di sax boobu mhm. tisbaar la nga dem ci sëñ lu ne ko day li nga def day xamoo ko lu sëñ waxoon la ne ko bi safa ànd ak moo Diarra ba fii jumaa ji nekk tey mu ne ko Mamour day fii naan naa fi jumaa ji woon su àggee yaa ak sëñ Bousso bi yéen koy jiite yaa ak sëñ Bousso bi waaw ah, yéen koy jiite xoolal sëñ Bousso Ilimane sëñ Bousso mooy maamam ndax moo jur baayam. Mhm. Mamour Diarra jur ndeyam. ñoom ñaar ko jiite. waaw ah, ñoom ñaar ko jiite allahu akbar sëñ bu talib ma ca toog di ko di jiite. Mhm. noonu la demee ñoo bokk ndey ak baay. allahu akbar nga xool eh, eh, sëñ Gari mi daan jiite naa fi léegi. Mhm. sëñ Mbacke Bousso jur ndeyam. waaw. Mamour Diarra jur baayam. dëgg la dëgg la. sëñ Afy Bousso mii fi nekk tey. ak sëñ Baar di ko jiite. sëñ Maama Jaare seen maam ci ndey mhm. sëñ Bousso bi ma seen maam ci baay kon kon ba tey moo koy jiite <laughs> sëñ Maamoun Bousso maam macha Allah macha Allah kon loolu sëñ Ba waxoon ba tey mooy mooy mooy am ah, gudd na fan nag ndax mhm. moo fi mujj sëñ Fallou 1969 mhm. wàccu liggéey. dinañ ñëw coow ci incha allah. waaw ah, Moussa Fall daa wax ne soxna Fatou daa fekk daa daa daa bokk ca mag njëkk ña ba nag bokk ci nit ñu mujj ñi. <laughs> xaw soixante-huit la fi Moussa Fall jóge ba ci déwén sama doxee jóge Moussa Bourma ñoo bokk at mi. ñoo bokk kon kon gudd naaw fan. macha allah yàlla amiin jërëjëf euh, sëñ Mor xam sa diine yaakaar naa ne li ñuy wax naan ñaari kuy xajul ci mbalka mooy li ñuy bëgg a dal ci diggante suñu ñaari Fatima yi yaakaar naa nag sëñ Tuubaa Fatima yi moom ñëwut lenn Fatima ndax li nga wax ci tarbiya ak soxna Faty ñun ñi nga xam ne yàlla mën nañu taw feex ñu jamononteeg moom ci Daaru Salaam daa nga ñëw ci moom fekk mu jox la super nga xam ne booba dongab daara day bëgg fu muy téye ci moom da daa denc aw ñam waaye daa nga ubbi super bi da ngay fekk mu soppee ko ba ngay gis yu daw ci biir loo xamante ni bii e, judduwaale wu ko mm. waaye dara day dinaa la lekk leen rek nga xam ne moom yooyu moom da nga koy jaxase rek waaw mus nangoo letti aw ñam te daan saxe daan li ma ne wax ne daan dem ni ak ñoom woo xam ne day fuur ba soo dikkee mu ne xam ngeen ne seen dëkk bi neex na léegi de waaye ba muy Tuubaa kenn mënu ko woon a am loolu mooy loolu moom ku miin Daaru Salaam miin nga ko li ñuy defee ji daane tegtale daane tegale ndax booba këram gi fi mu ne moo jàkkaarloog fi kër sëñ jere gi ne booba kër sëñ jere gi ab ab silaan la saxaar buy dem soxna Fat Ja mooy mooy mooy këram a mujjoon mais da daan tegale ay mool di taxaw ci mool yi naan ma xool saxaar gi jëm ci sëñ Tuubaa bu dëppee mu taxawaat fa naan ma xa ma xoolaat saxaar gi jógee ci sëñ Tuubaa loolu loolu moom pas-pas la ci sëñ Tuubaa kon kon macha allah ci li nga indi ci jataay bi yaakaar naa ne lu am solo la kon euh, sëñ Bakke euh, yaakaar naa ne wax nga ma ne 1930 la soxna Faati Penda génn àdduna euh, day mel ni nag moom waxtu wi mu génnee àdduna fekk na mu bàyyi fi ak njaboot. ñu bëggoon rek ñëw ci njaboot gi mu fi bàyyi ak seeni i taxawaay. ginnaawam laata ñuy toll ci tàggatoo jotaay bi. waaw jërëjëf sëriñ Maam Mor jërëjëf sëñ Fallal Galassinda eh, waaw soxna Faati 1930 ci la génn àdduna gannaaw sëñ bi ñetti at rek la fi am. Mhm. moom guddutu fan ndax ay sas yi la gën a àdduna. Mhm. daanaka eh, boo xoolee. muy 92. ba 1930. kon loola daanaka fanweeri atam ñu tegal tuuti rek. dëgg la moom loolu am ci àdduna. Mhm. Euh, yàlla dogal na nag am na bàyyi na fi ak njaboot ndax sëñ Modou mii ma la tuddanoon léegi mooy ab taawam euh, euh, sëñ moo ci topp mooy wayjuru amoon na it ku ñuy wax sëriñ Seex. sëñ Cheikh Mbacke moom dafa teel a génn àdduna mhm. ak euh, soxna Ami Cheikh mhm. ñoom daal la fi bàyyi mhm. jabootoon na nag dégg naa ko jabootoon la ndax am na mante ñeent wala juróom ñoo xam ne dañoo génn àdduna seen ndaw waaye ñii daal bi fi jógee moom mooy ñeent ñooñi mooy sëñ Modou mi la fi bàyyi ak sëñ dafa teel euh, génn àdduna moom it waaw ku ko njëkk a wutu euh, sëñ Modou moo fi moo ko njëkk a wutu sama sëñ Modou Galawngal mhm. waaw nag nekk na fi ba 1999 boo xoolee daanaka ci ñi mag ci sëti sëñ Tuubaa yi ci la bokk moom sëñ Modou waaw ndax mhm. ci bi dëkkee Jolof ci mhm. la gane àdduna ah, te xam naa moo ko soxna Mariam moom la ñuy wax sëñ Modou Baara. Mm-hmm. nga maase. Mm-hmm. nekk na fi nag ba 99. kon ko doon na ma fànn xam na juróom-ñett fukki at ak euh, juróom-ñett yaakaar naa. Mm-hmm. moo jumut. am na ko fi. Euh, moom nag euh, Galawngal rek la féete woon ak Touba daanaka mosu koo génn. Galawngal ak Touba kër gi ci. Touba ak kër ga ca Gelongal hmm. yàlla dogal na it moo doon xalifa bi suñu Amar hmm. ginnaaw neuf cent cinquante trois hmm. ba neuf cent quatre vingt dix neuf moom moo fi doon xalifa bi suñu Amar sëñ Modou Modou Mbacke Gelongal di ko fàttaliku ci bis boobu yi di ko ñaanal ah, sëñ Abdou Karim mii itam moom it ku xam sëñ sëñ Sohaybu rek xam nga sëñ Abdou Karim mm-hmm. ndax yaakaar naa photo sëñ yi nga xam ne ñëpp xam nañ ko mm-hmm. xoolee euh, sëñ Abdou Karim moom ngay seen ci gannaaw mm-hmm. moom sëñ Sohaybu la taxawloon daanaka diiru dundam ah moom it nekk na fi ba 1995 waaw dañu wax na moom 1918 euh, sëñ Modou wax na ma ne ma sëñ Abdou Karim 1918 la gën a àdduna. ci làmmiñ sëñ Modou laa ko dégg. waaw ah, nekk na fi nag 1995. moo fi sëñ Modou ko fi mujj. 95 a fi jógee sëñ Modou ja jógee 99 kon ko fi mujj. moom it ñu koy fàttaliku di ko ñaanal. moom it jëmm ju sell la woon ju baax. ju nangoo jaamu yàlla ju la woon. dégg naa danañ ko nduróole sëñ bi sax. te ko wax ba euh, wax ko sëñ bi nga xam ne sëñ bi da ko daan laaj di ko teg ci kaw moom sëñ Abdou Karim. loolu sëñ bi bëriwul sax ko sëñ bi defal. <laughs> waaye da ko daan wax laaj soxna Faati mu ñëw mu teg ko ci kawam. ko moom dañoo wax ne dañu da nga da nga moom. sëñ bi ci lool. <laughs> Ah, moom sëñ Abdou Karim. bu eh, baax la woon 1995 nag la fi jógee moom. Eh, fii ci dëkk fii mi ngi dëkkoon Palen Pon Gué. Hmm. la nekk la defoon Daaraam. Hmm. Eh, Touba kër gi fii la nekkoon. diggante yaari kër yooyu daal la daan jaabante diggante Belène Pam ak Touba. Mm-hmm. Touba 1995 euh, ak la fi jógee. Mm-hmm. soxna Ami Seex it moom it moo doon caatum soxna Faati. Mm-hmm. Euh, moom it euh, sëñ Amaru Mbàkke sëñ Aliou Mbàkke moom sëñ Modou Moustapha lañ ko njëkk a jox. dañuy taaw sëñ Aliou sax soxna Ami Seex moom yi moo ko juróon. ko jigéen la. waaw gannaaw bi nag dañ ko jox sëñ Amar Mbàkke. Euh, moom su dañ Amar Fall. Hmm. suñu Amar Amar Amar ak sëñ Amar. Hmm. ñoo bokk ndey ak baay. Hmm. sëñ Amar moo doon taaw sëñ Mbàkke Ibra ah, waaw moo sëñ Amar mii ñoo bokk ndey ak baay soxna Pend bu Jóob moom sëriñ bi defaloon wasiya bi. wasiya Pend Jóob. Euh, di doon moom it ku jàmbaare moom soxna Pend bu Jóob euh, ndax xoolee ci wasiya ba rek. ba sëñ bi tàmbalee mhm. euh, xaala taalibu laahi wa rasul daal ne yoosi murida taxoo mhm. yoosi murida taxoo rek wane na mhm. euh, moom sëriñ bi nangu la ak ah, taalib bi dëgg la surtout ah, euh, moom la ko bi defaloon Jóob moom it mooy waajur suñu amoon Mbàkke mii nag ak sëñ Amar Fall Mbàkke la am Mbàkke Ibra itam moom lañ ko joxoon hmm. it moo ko dëkkoo woon yàlla dogal ñu nekk ci daara sëñ Mamour Anta Sali hmm. gannaaw bi sëñ Mamour Anta Sali jógee nag eh, sëñ Mbàkke Ibra moom dafa dem sañ ci fële ci ndàll la hmm. eh, ba sëriñ bi moo ko fa jëlee bi sëriñ bi di jógee Mbàkke Kajoor di ñëw Mbàkke Bawol la jëli sëñ Mbàkke Kajoor ci ndàll andi ko euh, euh, sëñ Mbàkke Kajoor nag sëñ Moodu garaw ci làmmiñam nettali na ma bi fa sëñ bii dem booba sëriñ bi dafa àbboon fasu ku ñuy wax Moor Baraama Njaay dëkkoon ci dëkk yi ci gannaaw Mbàkke Kajoor waar ko muy aw wajanam mu dem Mbàkke Kajoor ne sëñ Mbàkke Ibra yow laay jëlsi euh, nuyoog moom ne ko yaa ma tax a jóg yow laay hmm. danaa la may nag ay fan nga defaru hmm. yu baale la hmm. ñu ànd dem nee na sëñ bi dem ca euh, kër maami sëñ Modou Awa Balla ñoom bu ñuy wax Mayib Awa Balla fa la sëñ bi dal moom fa dalee jël fas wa yeew ko ci ginnaaw kër ga commandant cercle commandant bi nekkoon Louga tubaab yee fi nekk jaar fi ne ku moom fas wi ñu ne ko ab sëriñ dee ko fi yeew mu daal di fas wi daal ko yóbbaale nga noonu lañ jëlee fas woowee mu doon jëlee sëñ Mbàkke Kajoor ginnaaw bi ay ay fas bu ko andi Mbàkke Kajoor waaye fas woowee noonu la ci sëñ bi toll sëñ Modou dee noonu li ci gën a yéem sëñ bi ba bi muy génn at ba fi sëñ bi jógee at mu ne sëñ bi dajal alal ju bari ne nañu ko jox borom fas woowee nee na moom ci boppam ñëw ne ko ne ñëw ne ko dañ ko nañ koy def nañ ko àddiyee ay njabootam it ñëw nañ wax na waaye nee na nangu mosu koo nangu waxtu at mu ne daal leen sëñ bi dajal na alal danañ ko jox ñi moomoon fas yooyee. Mm, sëñ bi moom ak sàmm moom mm. euh, la woon rek bu ma ci doon nattali. Mm-hmm. waaye soxna Faati mm-hmm. li sëriñ Mor mii mm, nattali rek. Mm-hmm. ci soxna Faati Ja loolu moo nekk ci doom sëñ Tuubaa yëpp la dëgg la boo xamee soxna Faati rek buñ la ko nattalee. Euh, nga xam soxna mooy mun a mii nga xam lu ñu bari ci ñun xam nañ ko. Mhm. Euh, koo ci xam rek day mel na xam nga ko ci des. wallaahi dëgg la kon aw melakaan. Mm, dëgg la ci nangoo jaamu yàlla ragal ko. Mm. am xam-xam sàmm euh, yaatu lool ci dimbale doomu aadama. Mm. xaaju ñëpp. ak bëgg mbokk lool nag bu mu gënal leen lépp. Mm-hmm. kon nag tànk yooyu rek. la ñuy jéem royaat di leen ci liggéeyal. moo waral ñu boole ko mbokkam mi mhm. euh, bés bi mhm. euh, di leen ci fàttaliku di roy ci seen i ak seen taxawaay mhm. euh, loolu rek la njaboot gi di woote macha allah koy loolu rek moo waral bés bi moo waral jotaay bi itam ñu sant mbokk nag leen gërëm sëñ Fallou jërëjëf jërëjëf Baye Serigne Mbacke naa ne bu ko waxtu yu maye woon ca ñu teewlu la rek <coughs> dana bari lu génn waaye déggoon naa benn waykat bu yàgg mu naan sëriñ bi ne bañub tubaab moo gën ci yéen jàpp mu laab waaye yaakaar naa ne lu waxuma lu mu jàpp man rek waaye bañub tubaab man na lu ëpp loola nga xam tubaab bii moom sëñ bi fasu sëriñ tubaab woowee eh, ni mu ko def ñaaw na lool te waaye maandu teg sëriñ tubaab ako sàmma tam feeñ na ci loolu eh, kon sëñ Mor dañu mel ne suñu waxtu jot nañu <coughs> ñëwaloon nga ji koo xamante ni bi géej la du weex te mooy doomi sëñ tubaab yi rek kon nag ma bàyyi la rek kàddu yi nga ñëwal ci euh, njabootu soxna Fatija gi nga xamante ni bi ginnaawam ñoo ko taxawee. waaw ah soxna Fatija. sëñ Daaru Xasan na la ko mm-hmm. mm-hmm. def naa ko ko xamut. Mm-hmm. kenn la ci al awwaluuna saabiquun. minal muridiin. bokk ci taalibe sëñ yi nga xam ne. Euh, ñu ñu ñu sàmm lool te te defaru hmm. nga xam dara jaam naa ci lu ñu rek ba euh, dafa si ndox daa ma si tombal taalibe yi bis hmm. Hmm. yàgg mu sigg seen si deru mu mu ne Xasan Njaay mais di di comme ne ci sa gannaaw laa topp war ngaa baral say say jéego te bañ a taxaw kon mi ko ne far ak farloom ci ci dox ci yoonu yàlla keroog bi mu wàccee ab liggéey Sëriñ Tuubaa daa ne li ko fi jëlee de mooy sayaatinul jinni dañoo daje woon ngir bëgg ma fay jëlee ñu dajale seen kilifa yëpp ku ne indi la nga am ci xam-xam bu bon ñu dajale seen xam-xam lépp ngir jëmee ko ci man nga xam ne bu bu asiwoon dama fay jëlee waaye nag biñ jëm see jamono mu bootu alxuraan dox sama diggante sama diggante ak ñoom ilaha illallah ñee daal suñu liggéey bi niñ ci sonne liñ ci daj mënuñoo mënuñoo sooyee noonu gannaaw mm-hmm. mënuñoo am sëñ bi daal kon nañ am koo xam ne bu ñu ko amee dañu wër ne muy perte ñu ko sëñ Daaru Xasan Njaay Allahu akbar kon wayoon na kon kon dayub sëñ mm-hmm. waaye nag yàlla mayu ko ak njaboot mm-hmm. sëñ bi nag ne ko su fekkee sama cër day bëgg naa ko ñu ko ndigal ma laaj ko sama borom ko laajee borom ca nam ko koy laaj ba noppi ne ko sa borom nee na buso mooy sa doom. mi mbokkal mi mbokkal buso buso yëpp nga xam ne ñoo bokk soxna soxna soxna jëturee. Mhm. muy mhm. mu ne sa borom nee na buso mooy sa doom. Mhm. loo tax seen seen soxna fa taf ko ci boppam. daal di woo sëñ Basiiru bindaloo ko aw kayit bindal ko wane ne bu fi jógee lu mu fi bàyyi rek busoo ko moom. mu gëm yàlla. sëñ bi si daal bind lépp. yàlla doon sonn bu jiitu ko. Mm-hmm. ba nga ko jiitoo nag mu daal di bindaat bindaat yeneen kayit kayit ñaari kayit yi gis naa ko sëñ Maamor woon na ma ko. Mm-hmm. bind woon kon bu fi bàyyi ko lépp lu mu fi bàyyi njabootu bu segi ñoo ko moom. loolu waral kon sëñ ñooñu njabootu sonn bu segi muy sëñ Basiiru moo rek. sëñ Mamor Bakala ak sëñ Baara ak mm-hmm. ñoom ñooy doon ay xalifa yi soxna Fatiha ba léegi. dëgg la dëgg la ndax loolu loolu sëñ doxal ne rakkaama sa borom neen mooy sa doom. Mm-hmm. kon taxawaay doom la am ci moom. Euh, lool a mm-hmm. ma saan xëy suubu suubu alxuraan lay jàng sëñ Tuubaa ma ko digal ma son son Fatiha neen ku ñeen xëy na jàng suubu alxuraan nga xam ne ay bés gu nekk ñoo ñu wàccab kaamil mhm. ñoom sëñ Tuubaa daleen boole woon ñoom ñaar lool kii ñaari soxna Fatima kii mhm. mooy taw sëñ Tuubaa kii taw Mamadou Diarra mu boole leen ñu seq lépp la mu leen daa digal mu ñoom la ko daa boole digal mhm. ñu waloon leen ba wax leen sax nañu kay kay jiitu àjjana ci yéen nañu toppante daal ci ci seen dem àjjana kon boole woon na leen euh, waaye nekkoon ku rafet ku ku bari yërmande nekk Daaru ndax masa denc xorom ci magasin bi mhm. kaña yi daal di di di di di jël xorom si rek bu yàgg mu ne nañ ko toxal toxal xorom ba yàgg bu toog yàgg mu ne nañ ko delloowaat ndax daal mhm. euh, bu fekkee dañ dañ dañoon lu ñu lu ñu bëgg daal ko fekk ñëw fekk duñ ko fa seen seen yaakaar day tas daf ko seen yaakaar tas mhm. wallaahi wallaahi <laughs> da koy dellooluwaat melentaan yi daa digal gone ñu de ñu far yi ci. butéel naaj yi dee yóbbu ci ker gi nga xam ne loolu. loo am ci loo am ci melentaan rek. am nga neex neexal bu ñu toll butéel nga daan wut di for di ci def. moo la bul ko wut ci butéel bi day ci def pepp day ci def pepp. mu daal di kii yëkkati xaalis jox la lépp kon yërmande lay wane. allahu akbar yërmande. sëñ Bassirou la eh, mhm. eh, moom laa jëflanteel ci lu bare bare bare bare ci xar baax yooyu mas naa xëy yaag mu daal daal di fudd yëkkat loxo neen li nga ma ñaanal ñëw ñaanal Basiir walaay boo demee xëy na ba demet ndax ñoom gone yi amuñ bés na ba demet ndax ñoom gone yi amuñu bés mhm. fekk na xëy na ànd seex yaaw ñu wuti ndar oto ba këpp ci yoon wa laa <laughs> ilaaha mhm. doguma la waaw maa ngi nangoo ci làmmiñu sëñ am satu mu ko mhm. mu ne ko oto boobu bi sëñ bi oto bi këppoo nee yàlla daa dogal mu fekk fa ab bi ñëwee di ko yëkkati mu ne oto bi bi muy daanu ki sol kaala gu weex gi maa ngi ko seen ci ginnaaw garab gee muy julli kon loolu leer la kon nga ne yëg na loolu ba tax moom moo ma naa ko ñaanal laa ilaaha illallah dem na itam dëkk bu ñuy wax jawe jaw mi ngi fii ci gannaaw njàpp ndal fanaat bi mu xëyee dama fàtte tur am na turum tudde ne diw ana diw fu mu fi dëkk ñu ne ko ñu ngi dëkk ci dëkk bu nekk ci gannaaw dafa xamoon a tur dama ko fàtte man mhm. nañ ma ko wol mhm. fekk ko ab rëbb la woon mhm. na ko doomi son si waaju ne fii sonn faat sonn faat ni wuy si mu ne ko yow kon yi rebe ale dañ maa kalaamee yow biig ñanaaw yi ñanaaw yi ndax ñoom dañuy ñëw ci teen bi ni rootee ci ndox dewande ji nag ñoom moom lañu am ci lañuy naan waaye bu ñu naan ci da nga leen fekk di leen fetal mm-hmm. ñu kalaam ak yow ko ci la waat daanu daanu ji waat waat ne ko bay naa ko bis tey la ilaha illallah nga xam ne kon yërmande ji demoon na ba sax ni rabi àll yi di ko di ko taw seen bopp seen jànqare mu di ko saafara mm-hmm. loolu day tegtal yërmande yi nga xam ne amoon na ko mm-hmm. euh, bu ñu ko toppoon fii ba soobu man du jeex mm-hmm. waaye daal ni ko euh, Baye Simba waxee léegi mooy ko sëñ nooy sëñ Tuubaa koo ci wax wax nga bu fekkoon da ngaa di tur tak si yeneen tur day day daal di mën wala ba taxaw dëgg la dëgg ah. la <laughs> jërëjëf jërëjëf euh, sëñ Mor xam sa diine jërëjëf itam sëriñ Mbacke jërëjëf sëriñ Abo Mbacke mu sëñ Abdou Karim jërëjëf itam sëriñ Jili Mbacke mi nga xamante ni moo doon coordonné jataay bi bokk yi lii moo nekkoon seen jotaay bi ñu doon tuddee ëttu murit doon ko amale ci ëttu doomi Serigne tubaay yi ñu man mën cee jàng yërmande ju yaatoo yaatu nag ci lii sëñ Mor wax ndax yaakaar naa ne li muy wax nii bari nañu ko dund ci Daaru Salaam da nga daan wut ab butéel di for melantaan li ci def soxna si da daan la butéelu kese waxuma ko da nga ciy defaale pepp wala sangal su ko defee ngay fer melantaan li ci def li fekk ko yóbbu ci xorandoom ba ñu am lu ñuy lekk waaye doo ko for rek noonu sànni yaakaar naa ne jooju yërmande nag Eh, mooy borom saana fen bi laa dara leen mooy kuy jariñ mbindeef ci mosoo leen a lor kon eh, seen bokk taalibe Fallou Gala Sylla moo nekkoon ci micro bi alaaji Fallou Sylla moo nekkoon ñu ngi ñaanalaat Sëriñ Tuubaa Cheikh Mamadou Mountakha yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal gën a dolli ak wéram di sant ñëpp di leen gërëm di bala aq di leen bala aq wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu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 bismillahi finin addaara yàlla safi baqa abihim li fika yàlla yaa man amul amru yaa mala